et cette déclaration de politique générale bi nga xam ne ñu ngi ciy xaar l'actuel premier ministre assemblée nationale euh, Ousmane Sonko mais à la générale ces députés hier nous ont fait savoir que rien ne le tient pour que mu def ko amul lenn loo xam ne tey tënk na ko pour que mu dem assemblée nationale mën a def loolee ndax da àndu ci argument yi nga xam ne ñoom joxe nañ ko. <laughs> Eh, xam nga politique moom euh, surtout les acteurs politiques dañu am justement de tirer avantage de de certaines situations. <laughs> comme lu ñu wax ni euh, en deux mille dix neuf avec la modification de la la constitution euh, suppression euh, post premier. ministre bi ministre mm-hmm. euh, am na loo xamante ne. assemblée dindi woon na ko mm-hmm. notamment la déclaration de politique générale oui. 2022 nag kii bi ñëwaat mais malheureusement Euh, xëy na les mesures idoines n'avaient pas été prises mm-hmm. mais pourtant c'est le c'est ce même groupe parlementaire de Yewwi Askan bi ñoom ñoo introduiroon une motion de censure donc donc Ba. le premier ministre Amadou Ba mm-hmm. donc euh, ce serait quand même aujourd'hui moi je suis perplexe en tout cas dafa ma jaaxal euh, ces mêmes députés fi nga li nga xamante ne xëy na ñoom ci loolu la ñu sokkandikoo woon bay euh, déposer motion de de censure xëy na dafa jàllul parce que mm-hmm. Euh, configuration assemblée bi ñoom ñu ñëwaat encore tey pour wax ni noonu dafa euh, euh, nu règlement intérieur bi dafa faux donc ñoom léegi la ñuy soog a xam ni règlement intérieur bi dafa faux mm-hmm. mais n'empêche même bu fekkente ne règlement intérieur boobu comme ñoom ñoo ko wax nee nañu dafa faux mais il la constitution la constitution mais c'est la maire de ouais, de les lois donc la constitution a prévu la déclaration de politique générale mm-hmm. dëgg la ci biir constitution notamment article cinquante cinq waxul ni ci délai nangam lañ koy def. Mhm. mais daf ko wax ni après la nomination war na mën a def euh, politique déclaration de politique générale. ñu jàpp ne Ousmane Sonko dafa xaw a ragal dem assemblée fekk fa une majorité hostile boo xam ne bokk bokkuñu ci moom. mais bu fekkente ne hostile tamit nañu négocier parce que je pense hmm. que aujourd'hui il travaille pour les sénégal Ouais. il faut que ñoom à leur niveau ñu ñu ñu arrêter di nekk dans une position trop défensive. Mmh. c'est vrai. Euh, ils ont tenu des discours très très désagréables. Ouais. Ils se sont fait bokku d'ennemis. mm Mais tey jii yàlla dafa dogal. Euh, ñoom seen mu ñoom ñoo ñoom ñoo jiite réew mi mm-hmm. kon ñoom ñoo war a njaboote ñëpp ñoom ñoo war a ubbeeku mm-hmm. dañu war a am ouvert esprit d'ouverture négocier avec euh, les autres députés il faut échanger avec ñoom mm-hmm. discuter ak ñoom ba trouver un point d'accord je pense que tey jii li gën a am solo ci ñëpp moom mooy l'intérêt du Sénégal euh, suñu réew ak ci li mu jaar ci dernières années yëpp soxlawuñu fi am benn crise kon je pense qu'il est de l'intérêt de tous les membres euh, toute la tout tout tous les députés qui sont à l'Assemblée nationale et tous les partis qui y ont qui y ont qui y sont représentés quand même ñu trouver un un un un terrain d'entente liggéeyal askan bi au moins jusqu'à l'année prochaine. les choses pourraient démarrer.